jikko jikko kenn du ko tiitaroo dañu ko liggéey jikko kenn du ko tiitaroo dañu ko liggéeye de jikko waaw jikko buñ ko tiitaroo rekk nekkatu fa waaw jikko buñ ko tiitaroo nekkatu fa jikko dañu ko liggéeye de waaw ndax jekki bani ma fi ne ma fi ne te lo fi jaruko jaruko to koku moy dem ba japp jikko ni pour rëy la waye du pour liggey jikko dañu ko liggey ta nak mag ñi fi jaar bax nañ ci ba mu ndaw yi am jomit bax nañ ci mu ku bëgg ko roy ñakul ñakul ku bëgg ko roy ñàkkul xanaa ñàkk bëgg a roy ñàkk bëgg a roy waaw ñàkk bëgg a roy waaye ku bëgg ko roy bu dee mag bu dee ndaw am na ci réew mi waaye ñàkk bëgg a roy nag mi ngi fi ku bëgg roy kenn doo roy kenn ku bëgg roy kenn mel na ni doo roy kenn te roy borom jikko dañu wax ni mooy gàllaaj gi gën a mag ci àdduna xaaji Ousmane Kan bu Kawlax mas na ma wax ni ma doom ndombo yu bare du gàllaaj mu ni ma bopp bu fees rekk mooy gàllaaj xam noonu loo takk takk gàllaaj te te ñemewuloo dara ruusloo nga gàllaaj gi rusloo nga ko gàllaaj ci fayda la nekk balaa nekk ci ndombo nekk ci fayda ba noppi ndombo dafa gunge fayda ndombo dafa gunge fayda wante du ko indi mukk te sëriñ Babacar si daan na wax ni nee na ndaw lii nee na ndaw lii roy jikko jàmbaar ya nee na léeg nga song ko ni dina ko wëndeel ba mu miir moo ci ko mu daanu nee na nga song ko nee na bu wëndeel ba jeexee rekk boo ko bàyyee ne nga xam ni yaa doon wëndeelu waaye moom fa mu taxaw jógu fa waaw moo tax gàllaaj nekkul ci ndomb mu ngi ci fayda daan na wax itam réew mi réew la moo xam ni ñépp a bokk ne te li ñu bokk duñu rëy ne ndax ku bokk ak nit deret bokkateeg moom lu toll ni yonent bi nee na li ngeen bokk rëy na nee na te ki nga bokkal lu rëy nag nee na car ba mu taxaw nee na soo ko goree ba mu xàqu nee na di nga xam ni yow itam ca car ba nga taxaw but it